nga xamee ne jële nañ ko ci roy gi ñu roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam géeju ci xam géeju ci xam-xam loolu daraja la xam-xam daraja la xam-xam teraanga la moom la yàlla terale woon aadama ci kaw malaaka yi kon daraja la ju kawee kawe bokk na nag ci daraja yi nga xam ne suñu borom terale na ko euh, nit yàlla yooyu ngir nangu guñ nangoo roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam géeju ci xam-xamu sharia ak géeju ci xam-xamu xaqiqa yàlla may leen ñu ñu ñu ñu ñu sori ca lool laata ñuy sóobu nag yoon wi nga xam ne mooy yoonu tasawuf nga xam ne ñoom laata ñuy sóobu yoon wax doon ay ay ay ay ay ay ay mutasawwifuun fexe nañ ba gànnaayoo xam-xamub sharia bu bu mat sëkk ak xam-xamub xaqiiqa bu mat sëkk nga xam ne laa la ñuy fi ñu jëm daal ñoom xam nañ ko laata ñu siy laata ñuy sóobu yoon bi mel ne foofu dafay taxaw bëgg nag ñu bàyyi ko xel muy mu mu wax ñu ne Euh, bëgg a sóobu yoonu tasawuf te te te xam-xam diine jiituwu ko bëgg a sóobu yoonu tasawuf bëgg dund tasawuf te xam diine jëkk jiituwu ko nee na loolu lor la gën a man ci jariñ lor la gën a mën ci jariñ ndax mën naa indi ñaari xeeti lor te benn bu ci nekk rek dooy na sëkk ëpp na sax benn bi mooy waru bi ci des mooy texee di waru mm, mm, nit koo xam ne nekkut ci dara ba noppi jàpp na ne ma nga ca dara wala koo xam ne euh, dafa dafa dafa dafa dafa wàcc yoon ba nekk jàpp ne dafa gindeeku kon euh, loolu mooy waru waja wala jàpp na ne àgg na fenn fi te fekk na doxagut ab jéego waru nee na ñàkk xam-xam ba noppi sóobu ci yoonu tasawuf ñàkk xam-xam ci xam-xamu diine ñàkk xam ñàkk xam jëmmi tasawuf ci boppam ba noppi nag ne da ngay sóobu mën naa andi ak waru ndax mën ngaa dem ba jàpp ne àgg nga fenn fi te fekk ne àggoo Euh, man ngaa jàpp ne say jëf jag na te fekk na jagut mën naa andi sax ne nag texee di mën naa andi texee di texee di euh, saqawaat la wax waxut genn genn texee di kon nga nga mën caa dégg ne mën naa andi texee dig àdduna mën naa andi texee di ëllëg texee di àdduna gi mën nga ne coono bu sànku mën nga ne bokk na ca coono bu sànku yow jàpp nga ne mbir mi nii la te fekk na du noonu fa nga koy dàkk du foofa nga jël say sa sa sa sa sa sa sa sa xam euh, sa xalaat sa alal sa lépp def ca ba noppi ndeke du foofa loolu kon coono bu sànku la euh, bopp ëllëg bi yàlla na ci yàlla musal boobu tamit mën na ko jur ndax man nit ki ginnaaw xamut ràññeewut ràññeewut man nay def loo xam ne ngërëmul yàlla la cay wute wut te fekk na boo demee safaan bi la cay am safaan ba la cay am ndax ñàkk ñàkk gum ñàkk ràññee xam ne daan na wax ne euh, yent ngi nii yoo xam ne ku bëgg kuy wut lu baax ku ne wala ku bëgg am lu baax ku ne na nga leen bàyyi xel ba ci ba mu ci jiital nee na mooy xàmmee lu baax ak lu bon lu baax ak lu bon gaa xàmmee mooy yóbbu nit ki ci mu dàkk ko foo xam ne fii du waaw xàmmee lu baax ak bon la ci topp nee na mooy euh, bu ca xeeb dara waaw bu ca xeeb dara waa de naa la jaral sa bakkan naa la jaral sa bakkan bu ca xeeb dara te loo ca am bu ko ñakk waaw kon euh, li ma doon li ma doon wut foofu mooy ràññee gi ràññee gi euh, bu dul loolu mën naa andi mën naa andi euh, coono bopp tey mën naa andi bopp ëllëg nee na loolu ci kon ñoom ci li leen suñu borom baaxee ci la bokk may leen ko ci ay daraja ci da ngëneelul topp gi ñu topp yonent bi sallallahu te mooy am xam-xam bu wér ci wàllu sharia ak wàllu xaqiqa kon ñoom mucc nañ kon ci lii nga xam ne moo moo moo moo moo mën a dal ku sóobu te gànnaayu wut ñaari xam-xam yooyu la euh, nee na bokk na ci xam euh, euh, teraanga yi nga xam ne ak daraja yi nga xam ne suñu borom may na leen ko mooy du ñu def lenn walla ñu wax lenn te du ne dañ koo natt ci nattukaayu diine ba mu leer leen lii kat lu wér la lu diine nangu la lu diine yoonal la ñu soog a sóobu bala ñu yëkkati seen benn tànk ji benn jéego di ko séqi jëme ko fenn wala ñuy wax lenn dañ cey am lu leer nañ ñi waaw duñ wax lu ñu xamut te duñ def lu leen leerut waaw euh, duñu làmbatu loola kon sëñ bi gis nga euh, moom dafa wane ne loolu daraja la daraja la kon nit ki am ak euh, dal gu ko may nga xam ne lu muy def lu nekk dana ko seet ba mu teg teg ba teg ko fu wér am ci silaay lu wóor lu muy wax lu nekk tamit naka noonu sëñ bi wane na ne loolu daraja la daraja la waaw nga xam ne kon nekkut nekkut lu yomb ñoom ñu nit ñu baax ñooñu nag suñu borom mayen na leen ko ci topp gi ñu nangoon a topp yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bokk na tamit ci seeni melokaan ñoom yàlla da leen mayoon ñu ñu ñu taqoo ak ragal yàlla taqoo ak ragal yàlla maanaam nekkuñu woon ay ñoo xam ne dañuy def tey bàyyi suba waaye naka jekk um, ragal yàlla aw melo la woo xam ne dafa dëkk ak ñoom dañoo dëkk ak moom laata ñuy sóobu ba ñuy sóobu ba ca njalbeen ga ba ca bañ àgg ca njobaxtan la mosuñoo tàqali ko ak melo woo nga xam ne mooy melo ragal yàlla loolu nag tawfiq la tawfiq la ndax seytaane dafa bari ay pexe nit ki mën naa tàmbalee ak njub mën naa tàmbalee tege ci yoon waaye mu dem ba ca biir mu gëmloo ko boppam waaw wëlbati yëf yëpp ba yàqal ko ñoom nag nee na mucc nañ ci loolu mucc nañ ci loolu naka jekk melaw ragal yàlla woowu dafa ànd ak ñoom te mos ñoo tàqali ko moom moo xam ci njëlbeen ga la moo xam ci mujj la bu dee ba ñuy soog a tàmbali nee na la leen ko may mooy ñoom euh, dañu doo amoon ak tiit ragal a def lu naqar yàlla waaw maanaam seen xol moo ñemewut ñuy def lenn lu neexut yàlla moo taxoon euh, ñu daan daw yu bari ñu daan daw yeñ daan daw waaw Euh, biñ demee ba àgg fa ñu àgg ci ay daraja ki maqaama taqalikoo wuñu ak ragal yàlla googee loole nag fa ñu gën a euh, xool la leen ko gën a yóbbee mooy jege gi ñuy jege seen borom mooy tax ba waxtu wu nekk ñu di ko yëg ci anam goo xam ne gi bokkut ak gañ ko doon jege ci njëlbeen ga màggal yàlla ndax xam gi ñu xam lu bari ci moom ak ab dayoom ak màggaayam moo moo moo leen di gën di yóbbu ci ñuy wattandiku di def lu ko lu ko neexut njaal benn nga mën naa am mën naa am koo xam ne kii day wattandiku def bàkkaar ngir ne bàkkaar mën na koo lor mën na koo lor tey mën na koo lor ëllëg waaye nag bi ñu demee ba jege seen borom ñoom jëmmi yàlla ji li ñuy gën a bàyyi xel ci lor ak njariñ waaw xam ne suñu borom daal ku màggal la ku yelloo màggal la ba tax na kon euh, ñoom euh, weesale nañ seen bopp di defatil lu naqar kon màggal yàlla ci ci tolluwaay boobu moo leen may ñuy wattandiku lu neexut yàlla moo leen di may tamit lépp lu mu leen digal euh, ñu def ci seen gëm kàttan euh, bokk na ci daraja yi nga xam ne tamit am nañ ko ci nee na euh, mooy dañuy safaan ak dañuy safaan seen bakkan fu bakkan jëm ñu njuuy ko ndax bakkan bokk na ci li ko yitteel waxtu wu nekk muy yëkkati boppam wala ñu di ko yëkkati waaw nit euh, euh, ki nga xam ne dafa topp bakkanam day lu luñ ko jox ci dara daraja day mel ni da koy xeeb lu mu ci am rek day mel ni day bëgg mu yokk ko euh, léegi nag ñoom bakkan fu mu fu mu leen jëmee moo xam ci wàllu yëkkatiku la moo xam ci ay bëgg-bëgg la leneen lu man di doon lu man di doon rek fu leen bakkan jëmee rek dañ koy safar bu bëggee yëkkatiku ñu suufeel ko lépp loo xam ne da leen cay woo dañuy xam ne loolee nekkut lu gën ci ñoom ba tey ñu wan ko gannaaw ndax topp bakkan topp bakkan am na fu muy àgg ak nit ki day mujj mel ni da koy jaamu afarayta man ittaxada ilaahahu hawa waaw ndax ginnaaw fu mu la jëmee nga jëm fa loola mooy la ñu war a nangul mooy la ñu war a jox yàlla yàlla lañu war a nangul fu mu ñu jëmee ñu jëm fa waaw su ko defee su fekkee ne nag loola dañ ko joxut yàlla jox ko bakkan day mel ni kon jaamu ga yàlla yelloo woon ña ngi ko jox bakkan ñoom nag loola mucc nañ ci euh, ak li muy bari bari ay pexe li muy mën a mën a wor foofa moom yàlla musal na leen ci ba nga xam ne dañ ko daan jooy fu ñu toll te dañ daan wàcce dañ ko daan suufeel di ko di ko teg lu naqari lu loo xam ne day mel ni lu mën wut la waaw di ko sëf euh, fa mu mujjee mooy rek aywa wëlbati ko topp seen gannaaw nga xam ne ñoom ñooy jiitu bakkan topp seen gannaaw waaye bakkan jiituwut ñoom ñu topp si gannaaw loola ba tey ci seeni i daraja la bokk bokk na ca daraja euh, fa ñu fa ñu àgg ci ci ak xam fa ñu àgg ci ay daraja ak euh, jege seen borom ànd ak loolu lépp teewutoon ñoom ñu nangu ne euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu gën a suufe ci mbindeef yi lañ ñooy ñi gën a suufe ci mbindeef yi ñëpp leen raw ñëpp a jiitu waaw ñëpp a leen raw ñëpp a jiitu loolu nag moom tolluwaay la boo xam ne moom bu moom beneen lan beneen mbir la ndax Euh, euh, ñi nga xam ne euh, ki nga xam ne moom àggagut soregut kooku day mel ni moom waxtu wu nekk lu mu lu ñu ko jox mu xeeb waaye kii dem nag ba àgg fenn fi day mel ni moom day da da ko dul da ko dul talati mal assanabili tanxani bi tawaaduin wal faarigaatu ruusuhunna shawaamixu day mel ni xott bi nga xam ne dara dara new ci waaw wala ba gub woo xam ne dara dara new ca diisut diisut danaan colet jëm kaw waaye gub wu fees del pepp diis gann day jëm suuf kon day mel ni nit kii nu mu gën a jegee boromam euh, gën koo xam day gën di wàcce boppam waaye du jéem a du jéem a yëgal boppam ñoom nag yàlla mayoon na leen tawfiq jooju la gëm nañ ne ñëpp leen man ñëpp a leen raw ñëpp leen jiitu te sax nag euh, day mel ni jaamu gi ñu jaamu yàlla wattandiku gi ñuy wattandiku lu naqar yàlla dañoo jàpp ne day mel ni amut lu leen ci yàlla war a war a fayee ñoom waaw wala lañ ko war a def dikk rek waaye ay xeeti karaamaak ak xeeti euh, xar baax ak yooyu yëpp day mel ni ñoom taxu leen a jóg taxu leen a jóg te buñ ko ci amul tamit ñoom euh, du def ci ñoom du yokk ci ñoom du wàññi ci ñoom waaw kon ñoom daal ay jaam yàlla lañu ñu doon jaamu yàlla gëm nañ ne ñoo féete suuf ñëpp ñëpp leen raw te it nag day mel ni suñu borom amut lenn lu mu leen war a defal ngir neexale leen ko ci ci jaamu googu leen rawatina bu dee lu jëm ci wàllu karaama yemuñ foofu yëmuñ ja yemuñ rek ci jàppe seen bopp na ñoom euh, ñoo féete suuf ñëpp waaye dañoo gëm ne sax ni ñoom euh, boolewuñ seen bopp sax nag ci ci ci ci ci ci ci jaamukat yàlla yi boolewuñ seen bopp ci nit ñu jub ñi waaw waxtu nekk dañuy gëm ne ñoom kat euh, day mel ni daal demaguñ fenn demaguñ fenn waaw looleen tamit ba tey nag tolluwaay la bu rëy rëy daraja la ju kawe kawe bokk na ci daraja yi nee na dëkk ci muñ nag dëkk ci muñ. dëkk ci muñ lan lu ñuy muñ mooy tooñ gi nga xam ne moom la leen ñi leen réere di tooñ waaw ndax nitu yàlla yàgg naa yàgg nañ ko yàgg nañ ko yàgg naa euh, daj ay coono ak i fitna yoo xam ne day bàyyi ko ci nit ñu jubadi loolu yàgg naa am ñoom nag lu leen man di dal ci soobu gi ñu soobu yàlla jóge ci ñoo xam ne ñu réer lañ wala ñu jubadi loolee dañ ko daan muñ dañ ko daan xajoo euh, ndax dañuy gëm ne ba tey rek loolu ci ci moo moo gi fi ñoo ànd teyit sax lu leen di yokk la waaye nekkut lu leen di wàññi kon bu dee lu jóge ci mbindeef dañ koy muñ waaye bu dee musiba moo xam ne suñu borom la sopp mu teg leen ko it naka noonu dañ koy muñ kon ñoom ñu dëkk woon muñ li muñ la euh, muñ nag mooy melawoo xam ne day mel ni mooy mooy moo moo mooy moo ku ku ko ku ko ku ko ku ko amut euh, dund diine dana ko jafe ndax diine mën nga ne digle la ak tere ndigal yi ku amatuk muñ du ko man tere yi ku amutug muñ du ko mën a wattandiku waaw kon diine bu yont bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne muñ mooy genn wàllug diine ah kay waaw euh, ku muñut du mën a euh, bàyyi ay soxlaam dem julli ji ku ku ku ku ku muñut du mën a dagg ay nelawam ngir dem def santaane yàlla ku muñut du mën a joxe ku muñut du man yu bare bare bare kon euh, muñ moom lu a ñàkk la su ko defee kon ci jaamu yàlla gi waaye ci ci ci ci jafe-jafe yi dund gi ndax bu fekkee ne lu jóg rek ëppale doole su boobaa day mel ni sab dox mën naa mën naa yeex wala mën naa gàllankoor nee na tamit dañoo bokk ci bokk na ci seeni daraja ñoom euh, lu leen lu leen man di dal lu leen man di dal dañuy gëm ne ñoom ñoo def lu ñu wërta def ba yàlla teg leen ko musiba yooyu nga xam ne dañ koy muñ bokk na ci la leen cay dimbale mooy dañoo gëm ne ñoom ñoo lu ñu wërta def ba yàlla euh, teg leen nattu boobule wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum waaw Euh, loola ñoom foofa lañ nekk nga xam ne lu lu lu leen dal rek dañuy daal di gëm ne am na lu ñu def kon lu ñu wartoon a def ñu daal di gaaw delluwaat seen borom euh, tuub ngir mu jégal leen loola ñu def ba mu tax ba tax mu teg leen ca loolu lam leen ci teg bokk na ci seeni daraja nee na waxtu wu nekk nag ñoom dañuy dëkk ci di am naqaru xol ci lépp loo xam ne rëcc na leen ci lu baax loo xam ne jàpp nañ ne waroon nañ ko mën a am moo xam dañoo am gàllankoor Euh, gum man di doon fu man di bàyyi ko ba loola rëcc leen ba loola rëcc leen nga xam ne euh, euh, xam nga am dañuy wax xaw fu di wax xusn niroo nañ te am ak wuute xaw fu dañuy wax ne mi ngi jëm ci lu lu ñëwagut looy bañ mu am looy bañ mu dal la xusn nag mooy loo xam ne lu am ba noppi la nga nga di ko naqarlu nga di ko mettitlu su ko defee kon ñoom nag lépp lu leen rëcc ci loo xam ne waroon nañ ko mën a am ci lu baax wala ci yool su fekkee ne rëcc na loolu da leen di metti yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na fu ñuy nettali ne benn bis ab euh, yenu nañu ab néew romb ko dafa mel ne ab yahud la dafa jooy dafa jooy ñu ne ko lu mu doon mu ne am na bakkan bu ma rëcc am na bakkan bu ma rëcc boo xam ne bu ma sañoon du ma rëcc xam ne kon faatu na ci ñàkk gëm yàlla te loolee loolee loolee ko metti nga xam ne euh, ab liggéeyam day mel ni kooka kooka jariñoo ci waaw nga xam ne kon euh, naqar woowu nga xam ne lépp lu leen rëcc rek ci lu ñu waroon maanaam seen diggante ak seen borom daf leen di metti lool daf leen di diis euh, ñoom foofu ñoom it kon kon ñoom foofu lañ nekkoon bokk na ci nag jikko yi nga xam ne wala melokaan yi nga xam ne amoon nañ ko mooy fu ñu toll du ñu wóolu mukk seen bopp seen bopp seen seen jëmmi seen jëmmi bopp jii duñ ko wóolu ndax euh, dañuy jàpp ne ba mu tuut euh, lu ne mën naa lu ne ma naa nga xam ne dañuy daw mm, euh, di bokk ci naafiq yi nga xam ne duñu wóolu ne mbaa du bi sangam def naa loo xam ne melow naafiq la mbaa man bokkuma ci mbaa bokkuma ci ñi nga xam ne ay naafiq lañ loola da da waxtu nag dañ koy bàyyi ci seen seen seen xel di ko tiit Seydina naa ibn Xattaab wax nañ ne mas naa laaj Xuzayfatu ibnu Yamaan mbaa bokkuma ci ñi yonent bi wax ne ay naafeq yi Seydina Umar ibnu ak fam àgg ci daraja ak dayoo waaye wóoluwutoon ne bis man naa ñëw yàlla na toog ko ba tax mu doon gëstu di laaj mbaa bokku ci ñoom i tamit gis nga ko euh, foofe foofe lañ nekk foofe lañ nekk waaw euh, ndax naafiq moom maara di taali loolu loolu loolu moom musibam tey lay jur ak moom ëllëg waaw léegi nag tiit weeru ëllëg tiit weeru ëllëg nit ñi jàpp ne fii ci àdduna boole la ca way sell ya boole la ca way dëggu ya bu ëllëgee suñu borom wone na kii kat lam doon def nangam ak ki nangam waaye dëggi dëggam mi ngi nii ngir mottandiku loolu ngir tiit loolu ragal loolu moo tax waxtu nekk ñuy xalaat ak daw mm, di bokk ci naafiq yi bokk na ci seen melokaan ñu woyofal seen bopp lañ ñu woyofal seen bopp lañ ci kanam yàlla ñu suufeel seen bopp lañ ci kanam yàlla wala ñu suufeel seen bopp lañ ngir yàlla waaw dañuy wàcc seen bopp seen digganteeg seen borom suñu wàcc seen bopp seen digganteeg seen i moroom tamit dañ koy def te yàlla rek tax waaw kon daawuñu yëg yàlla da seen eh, eh, seen seenu jege yàlla daawuñ ko yëg ñoom ba tax ñuy yëkkati seen bopp waaye waxtu wu nekk dañuy suufeel seen bopp ndax loola bokk na ci melokaan yi nga xam ne suñu borom daf ko bëgg waaw Euh, te da leen di gën a yokk nag far da leen di gën a yokk képp koo xam ne kii mi ngi wàcce boppam ngir yàlla suñu borom da ko yëkkati na ko xadis ba waxee bokk nag seen melokaan ñu dëggu lañ nag ñu dëggu lañ waaw dëggu ci seen pas-pas dëggu ci seen i wax dëggu ci seen i jëf seen biir ak seen bitti amut waroo seen biir ak seen bitti amut waroo waxtu wu nekk rek lépp lu ñu la wax seen jëf da koy dëggal waaw nañu meloon daaw ak ni ñu mel ren mënu koo xàmme du ca wax ja du ca jëf ja loolu nag eh, daraja ju kawe la yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa sadiqin ndigal la ñoom suñu borom baaxee woon na leen ñu am melaw dëggu googule eh, ñu dëddu woon àdduna àdduna lañ ñu dëddu woon àdduna lañ nga xam ne àdduna ñoru leen yitteelu leen bëgguñu woon àdduna eh, bëgg àdduna nag tekkiwut ne da ngay bàyyi léppam won ko gannaaw doo jéem a xam doo jéem a am doo jéem a man déedéet àdduna dëddu àdduna ci xol lay nekk na ko Seexul Xadim waxee ci xol lay nekk waaw euh, xaqiqatu zuhdi bi qawli man naqat tarku ko qasdaha bi qalbin li samat waa sa xol bu mu jublu àdduna bul def dara ngir àdduna bu la tax a jóg bu la tax a xëy bu mu la tax a gont waaye nag euh, yu yi nga xam ne mën nga koo jariñoo ci àdduna ngir mu dimbale la ci sa jaamu yàlla ngir mu defaral la sa ëllëg ah kay loolee nag moom euh, day mel ni ndigal la day mel ni ndigal la axadtu min duniyaahu zaadi waaw kon euh, dëddu àdduna ñoom euh, ci seen melokaan la bokkoon waaye nag ñu xam ne tekkiwut ne doo sol lu rafet tekkiwut ne doo lekk lu neex tekkiwut ne doo dëkk fu rafet fu rafet Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu ci ñi gënoon a rafet ak col ci jamonoom ci la bokk ci ñi ko gënoon a cher la ci la bokk waaye la lay woon ne col googu nekkul ci xol bi da koy sol ba nga xam ne ba ba noppi wala batiku waat nag di toog ak moom ci suuf waaw day solu ba nga xam ne yow boo ko gisee bu yow bu dee àdduna yi kese moo la ñor euh, yow loolu dana la yéem waaye nag da ko sol ba noppi nag toog ak sol gu rafet googee ak gu seet googee ci suuf nga xam ne kon wane na ne lii nekkut ci xol bi waaye euh, lu dagan la lu muy jëfandikoo waaw te ba noppi tamit mu ci daan jariñ ñeneen nekkut loo xam ne euh, da dajale da koy da koy maye ñeneen di ci jariñu di ko barkeeloo ba noppi tamit di ko waaje nga xam ne kon loola ak ak xàmmee la ak ràññee la Euh, nee na bokk na ci seeni melokaan lépp lu ñu bëgg lépp lu ñu bëgg lépp lu leen jaaxal lu ñuy wut mu tëleen lépp lu ñu ragal bëgg caa mucc ci yàlla lañ koy delloo ci yàlla lañ koy wut waaw maanaam lu lu lu suñ xememee dara bëgg koo am yàlla lañ koy ñaan ñu ragalee dara bëgg caa mucc tamit naka noonu ci yàlla la ñuy delluwaat ngir euh, mu musal leen ci waaye du ñu dellu ci nit di ko jàmbat duñ jàmbat doomu aadama ñoom bu ñuy jàmbat yàlla la ñuy jàmbat waaye duñ jàmbat doomu aadama bokk na ci seeni melokaan euh, la nga xam ne moom lañ tàmbale woon ci njàlbeen ga la tàmbale ci njàlbeen ga maanaam euh, yi ñu gën a dafa day day melokaan waxoon dafa dafa bokk ci yi ñu gën a ràññee ko muy wan xam-xam xam-xam xam nga moom la njëkkoon a tudd ci seeni melo kullun min al qawmi shaykhun aalimun aalimun léegi fi mu bi mu demee bay bay ba mel ni day tëj mu delloo si waat melaw xam-xam nga xam ne lu tax mooy dafa bokk ci yi ñu leen gën a ràññee yi ñu yi gën a ràññee ko ci seen melukaan waaw xam-xam bu mat sëkk ci wàllu sharia ak xam-xam bu mat sëkk ci wàllu xaqiqa xam-xamu biir ak ba bitti booba loolu loolu dañ ko am bam ba mu doy sëkk dañ ko am ba mu doy sëkk loolu bokk na ci li leen di dimbale ba waxtu nekk ñuy xam fu ñuy teg seen tànk waxtu nekk ñu ñu ñu ñu ñu ñu xam lu baax ak lu baaxut lu baax ak lu gën waxtu wu nekk rek la la la gën la gën a mën a maye yoolub yàlla la gën a mën a maye ngërëmul yàlla waaw boole ci nag dégg diina gu mat sëkk ba nga xam ne euh, tarxiis ak euh, jaxasook yooyu yëpp dañ cee mucc kon yàlla baaxee na leen daal ba ñu xam xam gu mat sëkk goo xam ne fu ñu toll euh, daf leen di dimbale xam googu nag ñu boole ca nag doon ñu rafet jikko ñu rafet jikko nga xam ne daawuñu fayantoo dañuy lewet dañuy lewet waaw nga xam ne dañ leen di tooñ ñuy jéggale mën a fayu ba noppi di jéggale na nga xam ne noonu la ko ku baax ka daan defee sallallahu bokk na ci melokaan euh, yitteelu woon leen ñuy woote ay xar baax am naa lii mën naa lii àgg naa fii looloo taxutoon mu ñor leen naka noonu it koo xam ne kii suñu borom baaxee na ko mu am ko dañ ko koy nangul waaw du ñu du ñu du ñu du ñu du ñu du ñu du ñu weddi daraja yi kenn te ñoom du ñu xëccu nag di yëkkati wala ñuy wone seen i daraja loola ba tey daa bokk ci seen seen melokaan xam ne day dëggal seen woyof kon day mel ni euh, foofu la euh, yemale melokaan yi nga xam ne moom la indi jëmale ko ci sëriñ su mat sëriñ soosule bi mu limee ba noppi nag mu teg ca nag mu teg ca nag di mettitlu ba tey ñàkk gu mu ñàkk kilifa yu baax yooyu la waaw ñi mel nii waaw ñàkk leen daal lu metti la ci xol lu metti la ci xol ñii nga xam ne euh, wàccu mësuñoo wàcc mësuñoo wàcc yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu fa mu mel ni kon day fedd li la ma waxoon ci ci digg ci digg euh, wasf yi euh, ne li ñu am ci ay daraja ñi ngi ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi tàmbali bi mu demee ba lim ba jeexi tamit ne wane na ne ñoom yoon wañ jaaroon mooy wa yonent bi sallallahu alayhi kon mësuñoo wàcc sunna mësuñoo wàcc sunna waaw Euh, loolu kon ab xaaj la ci ci ci téere bi muy wane meloy sëriñ su baax soosu nit yàlla yu jege yàlla yooyu nga xam ne dañoo mat sëkk nag biir ak biti xaaj bu mujj bi xaaj bu mujj bi mi ngi jëm nag ci euh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne day mel ni moo ci gën a fés waaye nag mu dugalaale ci nag yeneen yoo xam ne da koo sol ba mu fees dell nga xam ne bay du dikk day da koy sol ba mu fees da koy rokkas ba mu fees dell la ci gën a fés ci li ñuy gis mooy julli ci da koy rokkas nag ak yeneen Euh, li mu koy sol li mu koy sol bokk na ca bokk na ca di di di ñaanalaale saxaaba yi di ñaanalaal saxaaba yi di ñaanalaale njabootu boppam gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa sahbi wa alihi ni ngeen ko xamee am na ñu ne mooy njabootu boppam wala bokki boppam yi ko jege woon te gëm ko ñii ne déedéet ku ko gëm ku nekk rek comme man di doon ca penku ba ca sow ci nga bokk ñëpp mu boole waale leen ci ñaan gi benn yoon doyut waaye da ko baamu ay yoon yoon yoon ay yoon yoon yàlla na nga dolli teraanga xéewal mucc yow yàlla yàlla na nga ko dolli yonent bi sallallahu alayhi wasallam dolli ko ak njabootam dolli ko ay saxaabam yooyu nga xam ne am nañ aljanna yooyu nga xam ne am nañ aljanna nga xam ne kon foofu dafa mel ni euh, dugalaale na fi lenn ci seeni seeni seeni daraja darajay saxaaba yi indiwaale na ko ci biir euh, euh, xaaj bu mujj bi nga xam ne moom la xaw moom la jagleel julli ci yonent sa yow yàlla yàlla na nga dolli yàlla yow mi nga xam ne yaa yónni yonent bi sallallahu yàlla na nga ko dolli xéewal ak teraanga ak mucc ak jàmm te dolli ko njabootam ak saxaabam euh, te defal ñu ci barkeb salaatu boobu ñu mën a mucc ci ay wor ñu mën a mucc ci woru yàlla nga ci defal ñu mën a mucc ay wor euh, julliwaat ci moom julliwaat ci saxaaba yi euh, julli goo xam ne nee na mi ngi ñaakaar mi ngi yaakaar mi ngi ci séentu suñu boroom defal ko ci defal ko ak njabootam fatt ay futuxaat sax nag la wax ay fatt yu bari xamal ko lu mu xamutoon àggale ko fu mu àggutoon won ko lu mu gisuloon waaw yombalal ko lu ko jafe woon mi ngi koy séentu mi ngi koy yaakaar ci daraja yi julli gi mu julli ci yonent bi sallallahu yàlla na nga julli ci yonent bi yàlla na nga ko dolli teraanga mucc xéewal yow mi nga xam ne yaa koy jox wërsëg yow mi ko moom mayaale ko saxaaba yi ak njaboot gi waaw ñoom saxaaba yooyu nga xam ne nag lañ sàlloo woon fu ñu toll mooy topp yàlla loola mooy seen mbir xamuñu la neen bëgguñu la neen topp yàlla fu ñu mën di nekk ak tolluwaay bu ñu mën di toll loola moo nekkoon seen mbir yàlla nga leen boole ci ci ci salaatu bi euh, ñoom ñooñu la yàlla na nga dolli xéewal ak yërmande yow mi yàkk yow mi nga xam ne yaa teral jëmm jooju sallallahu alayhi wasallam yàlla na nga ko ko dolli euh, defal ko defal defal ko ko ci anam goo xam ne gii nag danañ ca mën a jëlee ñun ay karaama daañ ca mën a jële ñun ay karaama dañ ca mën a jële jële euh, euh, teraanga joo xam ne euh, ju bàyyi ko ci yow lay doon man ca jële ak kawe ay xarbaax loolu lépp nañ ko amee ci daraja julli gi sallallahu alayhi wasallam nañ ko defal loo xam ne ci xeeti yërmande ki mucc ak jàmm loo xam ne defalaale ko ñoom saxaaba yooyu nga xam ne danga leen a beral loxo danga leen a beral loxo ñoom waaw ndax suñu borom may na leen ñu te ak yonent bi sallallahu alayhi ba noppi kon am na ñu ñu ñu ngi ko xañ am na ñu jamononte woon ak moom waaye ah, ba mu leen jamononte ñoom ba noppi ba jamononte ak moom ba noppi tamit mu may leen tawfiq ñu gëm ko loola beneen la ndax am na ko fekkee te gëmuñu ko nangul ko topp ci gannaawam di xeex ànd ak moom di ko jox al seen alal jox ko seen bakkan nangam ak nangam yooyu yëpp ak jagle la goo xam ne suñu borom ay jagle la yoo ne suñu borom jagleel na leen ko ndax am na ñu ngi ko xañ euh, mu ngi dolliwaat di ñaan ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko ñaan yàlla bi nga xam ne moo ko àggale fu mu àgg ci ci xeetu daraja ak cang ak teraanga euh, ci daraja yi julli googu nag nee na ñoo ngi lay ñaan nga may nga defal ñu ci kashf nga defal ñu ci kashf waaw nga xam ne euh, ba tey ñu àgg fu ñu àggutoon ci dox bi ñu dox jëm ci yow euh, lu ñu lëntoon lu ñu umpoon rek ba tey nañu nañu leer lu ñu sori woon nañu jege yooyu yëpp ba tey ñu ngi la ko ñaan ci daraja julli gi ñu jun ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow mii nga xam ne yaa ko teg ci kanam ñëpp maa ngi lay ñaan nga dolli ko xéewal ak yërmandeeg mucc defal ko ci lu bare bare bare bare ba toll sax ni li mu sa mbindeef yi waaw ni mbindeef yi toll yàlla na nga ko julli julli gu toll noonu yàlla nga julli julli gu toll noonu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, yaa ko yëkkati yàlla na nga ko dolli mucc defal ko ko ci anam goo xam ne gi ñun daan ca far yëkkati ko ñun daan ca far yëkkati ko ñun eh, mu dellusiwaat nag ba tey di naqarluwaat dina xarluwaat ñàkk gi nga xam ne moom lañ ñàkk euh, nit yàlla yu baax yooyu nga xam ne jege woon nañ yàlla ba nekk fi lañ fi waroon a nekkee ba xëy nag dem won ñu gannaaw waaye yóbbaale nag ay ndëxëñteef ndëxëñteef yu yéeme yóbbaale ay may yàlla yóbbaale yool yóbbaale ay daraja yóbbaale euh, yu yu yu yu kawe yu yéeme yu sell yoo xam ne euh, day mel ni am na si yoo xam ne lëmu na ba bisu tey mëneesut a xam sax lu mu doon. seen diggante ak seen borom rek la kon ba tey loolu da ko fay dugalaat ci biir euh, julli gi mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, mu mu mu dugalaale ko fi wane ne ba tey mi ngi naqarlu mi ngi mettitlu ñàkk gum leen ñàkk delluwaat ci julli gi di ñaan yàlla mi nga xam ne moo jiital yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg ko ci kanam ñëpp may ko mu nekk royukaayu ñëpp mu dolliwaat ko xéewal ak yërmande ak mucc ah euh, defal ko saxaaba yi ñoom ñi nga xam ne suñu borom moo leen woo ngir ñu dajeek moom day mel ni dañoo am Euh, rendez-vous ak seen borom seen génn àdduna day mel ni dajale bu ñu war a dajaa ak seen borom ngir mu war leen a noppal ci coonob àdduna ngir mu war leen a fay bu liggéey ngir mu war leen a yokk tamit seen seen i daraja euh, mi ngi dolliwaat ji jul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne mooy ab soppeem di ab sangam julli goo xam ne gi euh, nee na yàlla moom mi nga xam ne yàlla mi nga xam ne moo fegal saxaaba yi mbooleem xeeti tiis ak i naqar ak i njàqare moom moom mi leen ci musal moom lay ñaan mu dolli xéewal ak yërmande ak mucc yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, mi ngi koy ñaan mi mi ngi koy ñaan tamit mu dolli ko ko moom yàlla euh, mi nga xam ne moo leen saafara musal leen ci mbooleem rag ji xol yi yu yu nëbb yi nga xam ne day yàqal nit ki ab doxam jëm ci yàlla euh, sikki yi tilim tilim yi waaw yu yu yu jagut yi moom mi leen ci musal yàlla na dolli xéewal ak teraanga ak mucc yonent bi sallallahu yonent boobu nga xam ne ay mayam du jeex ay xéewalam du jeex yàlla mi nga xam ne moo gindi saxaaba yi teg leen ci yoon wa ba tolluwaay bu nekk rek la gën a jub la gën a sell waaw ndax istiqaamaat la indi waxut istiqaama kese waaye istiqaamaat nga xam ne am nañu ko firee ne mooy tolluwaay bu nekk rek day mel ni la gën la gën la gën a tege ci yoon la yàlla taamu noonu lañ cee doxe noonu lañ cee doxe mu yow mi lan may loolu yàlla nga dolli xéewal ak euh, mucc ak yërmande ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, yàlla yow mi nga xam ne yaa leen defal loo xam ne tax na ba soxla soxlaatuñ kenn soxlaatuñ keneen ku leen defal dara yow mi leen fay li gën ci li gën li gën ci yu baax yi nga tànnal leen ko yow mi leen defal loolu yàlla nga dolli xéewal yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, defal ko ak njabootam euh, waxtu wu nekk na dëkk dolli leen ko ñoom ñoom saxaaba yi dolli ko mboolem nit ñu baax ñi defal leen nag la gën tey ak ëllëg te mooy ngërëmul ngërëmul yàlla mi nga xam ne moom moom asamaan moom suuf foofu kon fi day mel ni fi la fi la fi la fi la xasida gi fi la xasida gi yëpp suñu suñu bëggee nag euh, dugg ci yennati njàngat yu gàtt yoo xam ne benn bi day jëm ci wàllu wàllu wàllu wàllu euh, luxa bi wàllu euh, kaw gi ak loo xam ne mi ngi jëm ci biir bi daañ ci indi rek yenn ci tomb xasida gi rafetaay bi kawteef la Euh, daaj bi kese nii rek boo koy dégg neexaay bi waaw donte ne xamoo sax li muy wax mën naa mën naa jeexital daaj bi kese rek euh, albaxarul basit la ni nga ni ngeen ko xame waaye boo xoolee ci biir xeeti xeeti xeeti sew-sew yu balaax yi ci indi yu bare bare la daañ ci jukki yenn am na lu ñuy wax attibaaq dikk na ci biir indi ñaari baat yu safaanoo yoo xam ne dañuy jege waaw indi benn baat waxaat lu safaanoog moom loolu lu lu lu rafet la ci làkku arab da ce da ce yaatu nag asamaan yi suuf yi al araadi asamawaat kooku dikk na ci njëlbéen nga dikk na ci mujj gi andi na albuka andi xalaawaat te ku ne xam na ne jooy rawatina jooy yi muy wax fii jooy yi naqar la waaye mu teg ca kanam ay neex-neex ñaar yu safaanoo lañ andi nag ngoon andi suba euh, euh, al ashi ak al guduwaat al ashi ak al ghuduwat indi na fi ibaad muy ay jaam waaye indi na ca kanam rabban kaanu ibaadan bi taatin li rabbihim wa kaana jalla lahum rabban andi na ibaad andi na rabb jaam ak sang jaam ak borom dañoo safaanoo andi na fudul muy ay neen ay caaxaan wax yu jëmut fenn yu amut bopp amut genn mu teg ca kanam zikr zikr mooy li gën ci li gën a ci aw làmmi nga xam ne mooy li ab mukallaf war a sàlloo wax ju baax wax ju am njëriñ waaye safaan bi waaw ñoom ñaar gis nga ko ni leen ni leen mu leen ni mu jàkkaarle andi na saadaat indi na shaqawaat ay texe ak ay texe bi andi na nelaw indi deeyaale kii deeyaale kooko kooko nelawut kooko ma ngay jàng ma ngay julli ma ngay sikkar kay nelaw nag moom bokkatul ci den barazat ak tawallaw barazat feeñ na dikk na tawallaw wane nañ gannaaw ñoom kon ñaari baat yi dañoo jàkkaarloo dikru mughnin dikru hindin tudd yàlla ak tudd euh, jaamub yàlla bu bu bu bu bu bu xeebu waaw ñaar yëf la yoo xam ne yu yu yu yu yu yu wuute lañ fàttaliku yàlla ak fàttaliku jaamu yàlla bu xeebu xasdu wajhillaahi duuna hawan duuna xasdi hawan xasdul wajhillaahi ak xasdul hawa waaw jublu yàlla li ngay def yàlla képp tax ak koo xam ne kii la muy def bak bakkanam a tax ñaar yooyu dañoo dañoo jàkkaarloo xawfu ak raja yaakaar ragal ak yaakaar sukkur ak sabru dañoo jàkkaarloo muñ ak sant bat ak raayaat tàmbali ak mujj yooyu yëpp dañoo jàkkaarloo bari na ci lool jalbu ak dafa bijj ak jañ xëcc ak ak ak ak ak euh, dàq muqaabala li ñuy wax muqaabala am na ci nga xam ne du doon benn baat mën naa doon ay baat mën naa doon sax jumla mën naa doon maana moo xam ne dafa jàkkaarloog ma neen maanaam mum safaanoon kaanu ibadan bi taatin li rabbihim wa kaana jalla lahum rabban bi minnati ay jaam lañ yu nangu seenu njaam ba tax ñuy jaa dëkk ci jaamu yàlla waaye seen borom biñ biñ ko doon defal nag nangul na leen seen nangu gi nangu jaamu gi seen jaam nangu googu yàlla nangul na leen ko ba tax mu faye leen ci ay xéwal firndeel nañ seenu jaam seenu jaam ci topp yàlla kaanu abadan bi taati yàlla firndeel nangul gum leen nangul ci ay xéwal yu mu leen di defal ñaari jumlo yooyu dañoo jàkkaarloo barazat layla day dellusiwaat barazat layla ak tawallaw ilal la barazat fee benn baat bi kese moom lañ soxla woon ca tibaax ba fii nag jëmmi jumla bi barazat layla bi bahjatiha xajtuma barazat layla bi bahjatiha anha tawallaw ila al mawla jumla ñaari jumla yëpp ñooy jàkkaarloo waaw bu bu bu bu bu borom taar ba génnee soxna sa génnee ak melokaanam euh, ñoom amuñ soxla ci moom dañ koy wan gannaaw jëm ci borom bi nga xam ne moo leen boole moom te jëm ci moom nag boole ko ki topp xaalal bidaayati ma xaali nihaayati tolluwaayub tàmbali ak tolluwaayub àgg ca njobaxtan la loolu ñoom tamit dañoo jàkkaarloo indi na fi jinaas al murid ay baat yoo xam ne dañuy xaraf yi dañuy bokk wala sax ñu niroo lool ba noppi wutee ay maanaam gawaayaat gaayaat fuyudaat futuxaat kaafin shaafin kafaahum shafaahum andi na fi al istiaaratu tamthiliya ba tey ci wàllu balaaxa la boo xoolee fa mu gën a fese mooy nirole gi mu nirole yoon wi nga xam ne moom la soobukat yi soobu ngir jëm ci yàlla mu di ko nirole ak tukki nirole ak tukki tukki boobu ak yemi war a àndal mu mu mu mu muy lim yi gaa yu baax yi soxla te mënuñ koo ñàkk ci dox bi ñuy dox jëm seen yàlla seen borom mu di ko nirole ak yi nga xam ne tukkikat mënu ko ñàkk mu andi Euh, kuy jóg ku nekk am na lu la lu la lu ñu mu ne waa kon ñoom yàllaa leen yëkkati ni nga xam ne boo ju bëggee tukki da nga naan damaa jëm barab sàngam damay jëm Dakar damay dem Ndar waaye ñoom ñu ne ñoom ca pays ba lañ jëm pays suñu borom lañ jëm mu niroole euh, kii tukki dox ci suuf si jëm barab sàngam mu di ko niroole ak dox boobu ñu dox jëm ci yàlla seen seen jumtukaay yi ñu yi ñu yor yëpp tamit naka noonu euh, ku ku jëm foo xamut soxla nga ku la ku la won yoon wi mu niroole sëriñ bi ak ki lay gindi ki lay won yoon kuy jëm foo xamut rawatina ngay dox guddi soxla nga ngànnaay njàpp mi nee na mooy ngànnaay bi soxla nga ab làmp nee na mooy dikr soxla nga euh, looy war ay waruwaay sax la wax nee na loolu mooy rëy bët rëy bët loo am ci lu baax ca nga xeeb ko foo toll tey bu euh, bu subaa nga ne na danaa ko weesu rëy bët waxtu nekk rek ngay dox te bañ a taxaw euh, soxla nga looy sukkootoo nee na loolu mooy bàyyee seen bopp ak seen borom duñ sukkandiku ci seen dara jàpp nañ ne mënuñ dara mënuñ dara amuñ dara xamuñ dara waaw duñ sukkandiku seen jaamu duñ sukkandiku seen xam-xam duñ sukkandiku seen alal lépp rek ci yàlla lañ koy dellu euh, laxasaay kuy tukki ñaare da koy def waaw loolu ndax ndax ndimbal la ci nee na loolu nag mooy dogu gi ñu dogu positif bi ñu am ci ne waxtu wu nekk rek lu ñuy def lu nekk rek la la la ca la ca gën la ca gën a wér la ca gën a la ca ëpp solo loolee la ñuy wut ñoom ñoom Euh, duñ soxlawuñu fi kaw jaamu yàlla yépp nag ginnaaw dafa am biir am biti ñoom biir ba mooy la leen gën a ñor dañ koy misaal ci julli euh, bi julli am na lu ci biti bi moom booy xool da gis day sëgg day siggi day toog day taxaw ñoom loolu lenn la ci julli waaye nag du la yitteel la yitteel dëgg dëgg dëgg dëgg mooy teewlu gi ngay teewlu sa xol ci biir julli gi loolee nag moom mooy la leen gën a ñor ci julli gi donte ne lii lu mënta ñàkkale su dee koor gi euh, du ñàkk ñàkk naan kese yéene ju sell ja nga am ngir jaamoo ko yàlla sàkkoo ko ngërëmam loole mooy la leen ci ñor ak yeneen ak yeneen euh, ma ngay niroole tamit yoon wi nga xam ne moom lañ jaar ñoom maanaam tënku gi ñuy tënku ci sharia mu di ko niroole ak yoon wi nga xam ne moom la tukkat bi di jaar te du ko wàcc kuy tukki da ngay soxla euh, ñu la wetti li bu fekkee ne da ngaa jëm fa sori ndax ndimbal la ci muy niroole sa mbokki taalib yi ngay àndal bokk ngeen bokk pas-pas bokk jubluwaay mu di ko niroole ak ñi nga xam ne ñoom ngay àndal ci tukki bi nga di wettilante ak ñoom mu andi fi ci mujj gi ay waxin yoo xam ne boo ko xoolee dafa tegale ñaari yoon ba ñett ba ñeenti sax waxin yoo xam ne day niroo ba noppi di ko dugalante lu mel ni ci man faazu bi jannaat yi nga xam ne boo tuddee meloy saxaaba yi ak seen i seen daraja ba ca topp mu mu mu ñaan mu ñaan loo xam ne lu mu soxla la moom moo ko nukk fal xururaati man faazu bi jannaati mu teg ca nukk fal xururaati man xaazul atiyaati mu teg ca naxwil futuxaati daanu bi taati mu teg ca naxwil karamaati waa nga xam ne dal bu indee seen i daraja ci salaatu bi ba ca topp mu ñaan soxla andiwaat seen i daraja ñaanaat soxla andiwaat seen daraja ñaanaat seen soxla ñaanaat soxla eh, al araadi ak samawat xam ngeen ne ñëw na ci njalbeen ga waaye ñëw na ci mujj waaw eh, tabkil araadi alayhim ka samawati ridwanu rabbil araadi wa samawati eh, waaye bokk na ci li fi gën a fes nag ci li ñu gën a seetlu ci ci ci ci ci téere bi mooy li ñuy wax tasalsulul mantiqi boo xam ne muy ni mu ràbbalee Euh, euh, maanaa yi ni mu ràbbalee bayt yi lenn lu ci nekk mu dugal ko fa mu war a dugg buy jóge ci lii jëm ca lale nga xam ne da ngay xam ne euh, tuxu gi muy tuxoo gi fii kat méngoo na ak fi mu bëgg a dugg noonu la ko tàmbalee ci bopp ba ci cat ba ci mujj gi boo seetloo da nga gis ne njëlbéen gi day wax ne day jooy ab kii alayhim wa arju fil bukaa gadan mi ngi naqarlu dem gi ñu dem waaye boo xoolee bay jee ca topp dafa mel nit yow da nga koo laaj ne ko waa li ngay jooy lu ñii ngay jooy lu tax nga leen di jooy mu indi seeni melokaan mel ne daf lay tontu ne la nii ñu meloon melokaan yu yéeme yu sell yii ñu meloon loola mooy li ma metti waaw yooyu melokaan yooyu ñu yóbbaale loola mooy li ma metti yemut foofa bu indee seeni melokaan muy lu yéeme nga ne ah waaw kon ñoom nii lañ meloon lii moo moo moo tax mu yëf yi àgg la fii ci misaal nga ne ko waaw waaw ñoom fu ñu jëlee lii nuñ def ba mel ni mu ne la yoon wañ jaaroon moo leen ko bañ foofa fa la tàmbalee di wax euh, ma euh, euh, yeeg ak euh, maqamat yi waaw nga xam ne kon wane na ne seen melokaan yooyu sóobu gi ñu sóoboon ci yoon wi nga xam ne moo mel ni moo leen ko yóbbee mu ne ko waaw waaye ñoom ñoom dañoo jékki-jékki rek euh, faru yoon noonu rek daal cay sóobu daal di mel nii mu ne déedéet dafa am ñu leen ca teg mooy sëriñ si nga xam ne ñoom la doon wax seen i melokaan waaw sëriñ soosu nga xam ne nag ñoo mel nii mel nii mel nii àgg fi àgg fi àgg fi ñoom ñoo leen doon yar ba teg leen ci yoon woowu nga xam ne ci lañ jaaroon ba mel nii ba ma bañ demee nag ba gisatuma leen loola moo metti ba tax moo ma indil euh, naqarlu googu leen boo nga topp sëriñ soosu ñoom it mm, ci misaal nga ne ko waa ñoomit it fu ñu jëlee lii mu dellowaat leen ca saxaaba ya dellowaat leen ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne euh, euh, ndongo yi day mel ni ñoo jiitu ndongo yu yu yu yéeme sëriñ su mat topp ca saxaaba yi ñëw yonent bi nga xam ne ko day mel noon la ko tegale boo ko xoolee ba mu jeex soo xoolee mujj gi da nga gis ne ñett yi dafa dafa dafay teew teew goo xam ne gii kiiman la eh, yàlla jëmmi suñu borom ci dafay teew bu wér yonent bi sallallahu alayhi wasallam teew fi waaye saxaaba yi teew fi teewaay boo xam ne bii bu bu bu bu bu fés a fés la waaw ci ci ci mujj eh, ndax da gis ne suñu borom bu koy tudd amut benn yoon bu mu tudd turu yàlla allah julli gi muy yàlla na nga julli ci yonent bi sallallahu sa wasallam li muy bari bari bari benn yoon bu mu fi bu tuddee baatu allah amu fi lu muy tudd mooy meloy suñu borom ay meloom lay indi euh, mukar mukarrimuhu musharrifuhu raafiuhu raziquhu yaw mi ko wërsëgal yow mi ko yëkkati yow mi ko darajaal musawwiduhu yooyu lay indi nga xam ne da ciy kañaale yàlla di ci waxaale man-manam ak sañ-sañam ak li mu defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit boo ko seetloo da nga gis ne moom it tudd fi turam benn yoon ay meloom ay dàkkentelam la koy indil al mustafa xayrul bariyat euh, al habib al euh, almushaffa almuqaddam ay melokaanam lay indi waaye moom it ba tey tudd fi baatub Muhammad wala baatub Ahmad tudd ko fi benn yoon saxaaba yi gis nga ko ñoom moom ñoom it gis nga ko euh, mi ngi leen di ñaanalaale waaye mi ngi indiwaale tamit seen i seeni i seen seen i melokaan euh, ay seen i dara yoo xam ne suñu borom suñu borom defal na leen ko kon nga gis ne ñoom dañ fee dañoo dañoo teew bu wér a wér la ca toppaat muy loo xam ne ba tey ci tënk lay doon rek da gis ne. sooy xool wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu ruux bi xasida gi wàllu ruux gi moo ci fees del la ndax loolu ko tax a jóg far waaw ci mën nga ne wenn xaraf wu génn foofu amu ci waaye booy xool da nga naan xasida gi léeg-léeg da nga ne man nga mën nga ne xasida tagg la mën nga ne xasida risaala madh la wala risaala bu bu la ci neex xaw nga ko mën a xaw nga ko mën waaw xaw nga ko mën a mën a mën a dugal foofu waaye nag mu jaare ci tagg yooyu mu jaare ci naqarlu mm, demuk ñooñu dem jàngalaale la ci lan mooy tasawuf nga xam day mel ni bu fekkee ne dañ naan xarat bi li tax a jóg xasida gi mooy matx wala risa jaare na ci matx boobu wala rita boobu jàngale lan mooy tasawuf indil la ko ci anam gu jege nga xam ne sama maas gu nga xam ne seen dégg soriwul mu indil la ko ba mu jege sam xel ba nga man koo ba nga mën koo wax la euh, ki ki soobu yoon wi nu mu mel nan la yoon wi mel ki àgg nu mu mel ci anam goo xam ne gii da nga ciy xamee ne kii li muy wax moom lu mu peeg la li muy wax lu mu peeg la ndax ay bayit yu néew mu andil la ci loo xam ne day mel ni ay jal ay jali jal la waroon a doon loole ku jekku li muy wax moo koy moo ko moo ko ba tax na kon téere bi mënees na ko boole ci téere yi jàngale tasawuf bu wér a wér a wér a wér donte ne ay bayitam bariwut waaye dafa fees dell ak maanaam boo xoolee day mel ni dafay sëñ bi dee ànd ak yow ci tukki ci biir euh, jaww ji nga xam ne moom la nit yàlla yooyu doon dund mu ànd ànd yow ngeen di daagu ci biir mu mel ni da ngaa jàkkaarloog seen jataay zikkar ya danga nga jàkkaarloog ñoom bu ñu jug guddi di julli da nga ñoom bu ñuy jëflante ci seen biir loola nga xam ne euh, seen sell gi waaw sell gi ñu àndaloon daray àdduna ñoru leen euh, mucc ci xeeti tawati xol yi seen xol fees dell ak bëgg yàlla gëm yàlla ragal yàlla joxante cër ci seen biir di sàmmonteeg àq yàlla di sàmmonteeg àqi doomu aadama yi boo ko xoolee dangay gis ne ñoom sëñ bi da dafa ànd ak yow ci tukki boobu di la woon dund gu nosu dund ko ay doomu aadama yu nosu yoo xam ne xam nañ ñoom lu leen indi fii ci kaw suuf si xam nañ tamit lu ñuy wut ëllëg waaw loole nag jaral leen lu nekk jaral leen lu nekk ay nit yoo xam ne dañoo tànn yàlla dañoo tànn seen borom dañoo tànn seen borom nangul ko moom gi mu leen moom bu wër tànn lislaam ji gën a mat fa mu gën a mate fa mu gën a kawe tànn ko def ko mu nekk seen diine tànn yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko mu nekk seen njiit def ko mu nekk seen def ko mu nekk seen royukaay boole ca nag ay yitte yu kawe yoo xam ne du masa du masa du masa giim nga xam ne da da nga yëg ne neexit wi da nga yëg neexitu xol boo koy booy ànd ak moom ci tukki boobu la nga xam ne faw mu am jeexit ju ci yow moom mu mel nii moom jooy maanaa lay jooy waaye yow mi teewlu di ànd ak moom boo ma tuut yow jooy dëggantaan moom mën na la caa fekk ndax nim lay jegeele nit yi yu baax yi sang yu tedd yooyu la ak seen melokaan yu yu nga xam ne ñu ko ñu ngi ko jëlee ci saxaaba yi ñoom ñu jëlee ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom mooy balluwaay bi mooy cosaan li nga xam ne mooy cosaan lépp lu baax ay yenn ti jàngat yoo xam ne si la ñuy tëje li tax sëñ sëñ Bachirou di wax ne ku ku bëggoon a wax ne sëñ bi daa bëgg a wane day day day melal boppam uh, ak um, daa day wane um, tolluwaayam ak tolluwaayam ñi nga xam ne ñoo ko wër ku ko waxoon it des na ko mën a nangu uh, lu tax xakay ah, xel na ko nangu na ko bu baax lu tax mooy mboolem melo yi nga xam ne uh, sëñ bi indi na ko jox ko mm, ñooñu muy wax ne moom lay naqarul seenug dem benn boo ca xool bu nekk da nga ko fekk ci moom da nga ko fekk tamit ci ak njabootam al ubudiyya xam nga mooy bi mu leen njëkk a jox kaanu ibadan bi taatin rabbi moom la leen njëkk a jox al ubudiyya moom nga xam ne saxaaba yi eh, eh, eh, yonent yi ñu ci bari bu leen suñu borom di tagg wadkur abdana lay wax wadkur ibadana innahu min ibadina al muxlasin waaw ni'ma al abd fa wajada fa wajada abdan min ibadina nga xam ne baatu ubud ubudiyya daraja la daraja la nangoo suufeel sa bopp ci kanam yàlla loolu ak yëkkatiku la ci jaam bi ña nga xam ne safaan bi lañ def ñoom safaan bi lañ ci jëlee iblis mi yëkkati woon boppam ci kanam yàlla ji faxru jinnaka mina saaxirin fa la mujj firaano mi demoon ba gëm ne moom dañ ko war a jaamu ni ñu jaamu yàlla fu mujj fa axadnaahu wa junuudahu fa nabadnaahum fil yam toroxtaane joo xam ne ba bisu tey ji ñu ngi koy fàttaliku ndax jëmm jàng fi ne ñum léegi nag ay firnde yi nga xam ne mooy wane ne euh, mboolem melo yi siñ bii lim boo ko xoolee ci moom da nga ko gis gis ko ci njabootam on boo ci la bokk sëñ bi baatub abdu da ko neex neexaay goo xam ne gii kawtéef la li muy dikk ci mbindam ak i waxam wax na ne moo ko jotalee tubaab bi ba tax ñu génn ko fi axarajtu mu ni naatiqiina bi annani abdul ilaah kon nangul gi mu nanguloon yàlla gàntul ku dul yàlla moo ko jotaleeg ñoom ba mu demee ba nekk ci seen biir wane na ne musta dellu gannaaw foofe nee na euh, wa man saahu kaw nii li mawlaaya aabida wa kaw nii xadiman li shafii almuqaddami fa inni lahu fi lbarri walbahri aabidun abidun xadimun li mun jin min dawaayi tanaddum muy biñ ko jëlee fii li taxu ñu jëlee ko fi mooy ubudiyya gi ba mu demee ba ci seen biir mu ne mu neex leen mu naqari leen ca géej ga ba ca jéeri ja abdullahi laay doon ba faaw du ma doon abdu karim euh, di see di ko seedaloo sax yi ñu jàpp ne amuñu xel géej gi waaw géej gi mu di ko seedaloo wéetal gum yéete wéetal yàlla li yashhad bi kaw ni abdaman yaghfiru zanba waatu abdullahi jëf ni ko ba ko wax ne dana dellu si wax ak ñoom te la muy wax ak ñoom mooy di leen seedeel ubudiyam googule inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li maliki mutarra lu mu leen di wax tayqanu bi annani lillahi abdun xadimun li rasulillah mi ngi koy seedaloo mboolem binde fi yaa jumlatal xalq ishhadu lii yawma fihi yaxuusul mujrimuna lawma bi kawniya daarayni abdallahi abdallahi kon ubudiya boobu moom lu saf ci moom la lu muy dund la loo xam ne lu ko neex la tamit soo xoolee jeex gi ñu jeexoon ci yàlla raabu euh, li rabbin daahum waa lil uluwati dañoo jeex ci yàlla seey ci moom moom it foofa la nekk euh, wal tusbitan xubbaka fii fuaadi wa fu wa xubba xayril xalqi fii tamadi waaye won na ne moom bëggut leneen da ko doon ñaan yàlla waaye dem na ba am ko bëggut leneen yàlla la bëgg yonent bi la bëgg saxaaba la bëgg ak ñu leen bëgg euh, widaad yi li rabbi wal muqaffa wa xisbihi dafa jeex ci yàlla jeex ci euh, yonent bi jeex ci ñoom mahat mahabbati al muxtaar kon jeex ci yàlla jeex ci yonant bi da koy daal di ci moom dundal waxtu daawuñ sànq seen waxtu ñoom nit ñu baax ñi muy tudd foofu daawuñ sànq seen waxtu moom kenn du moom ci ñàkk sànq waxtu xamutug neen jàmmante ci boppam da ko daan tàyyi ndax jàpp na ne sànq waxtu la mbaa jàmm nga am ñu ne jàmm rek wasalaam waxtu jeex na xam ngeen luy jàmm ñu ne déedéet mu ne jàmm mooy al iman wal islam wal ihsan fépp foo fii Eh, jàmm nga fa te yii amu fa bu fa jëkkee it du fa mujj fu jàmm nekk te liimaan ak lislaam lixsaan nekku fa su fa jëkkee du fa mujj waaw kon gis nga ko daawut sànq waxtu waxtu wu ne suñu bés bi day wax ne guddi gi lu mu waxtu wu man di doon soo ko nemmi ko da ko fekk muy julli wala muy jàng wala muy bind walla muy def lu lu am njëriñ su dee wàllu ñàkk nelaw wax nañ ne mas nañ ko laaj ndax da nga nelaw mu ne waaw waaw waaye du ko xaar fenn du ma ko xaar fenn mooy day nekk ca la muy nekk rek ba nga xam ne mënatu la ñàkk mu def ca lu gàtt delluwaat ci ab liggéeyam beru googu euh, mi ngi ko wax ci ci biir waaye moom tamit tuxu tuxoo yi mu daan tuxu lu ko waral mooy bëgg a wéet ak ñi nga xam ne ñoom lay defar bëgg wéet moom tamit ak boromam ba mën caa am la bëgg not gi ñu not seeni noon firndeel na ko ne moom tamit am na ko xawmin xawmun bi aslihatin aadaahum qaharu moom tamit wax na ne malaktu nafsiya moom moo yilif boppam ba bakkanam wa zaxzaxtu lain iblis moom du du du kuñ fiy jëlee waaye moom fexe na ba ba mu sori ko ba du ko du ko lor ndax waxal na boppam ci nettali boo xam ne bàyyi seen daan ko wax nee na bi mu jógee sóobu suratul mustaqim lis eh, eh, iblis da ko dogale nee na ci baat yi nga xam ne moom ni mu ko ni mu ko daan jëfandikoo nee na ñu ne kiir tum mooy ñu songo ñu ne kiir tum nee na fasuma yéene lu dul yóbbaale ko moom iblis fasul yéene lu dul wàññi ma seet ko ba xam ne mëneesu koo yóbbaale mu seet ma ba xam ne mëneesu maa wàññi mu baa ma ma mbagg ko and nii laa yem yu baaxatun fay nekk kon kook moom dafay nekk bi di yàq ba faaw waaye nag mënalu ko ndax moom suñu borom aar na ko ci moom euh, axatu min duniyaahu zaadi lil jinaan wan qaada lil hawa kon ñeenti noonu ñi nga xam ne ñoo jaaxal ñëpp ba tax ñuy soobu moom suñu borom euh, dimbali na ko ci euh, kullun xabirun bi adwaayil xulub xam gi ñu xam tawati xol yi luy firndeel ne moom ma nga mooy xeetale xàjjale gi mu daan xàjjale ñi mu doon yar di leen def ay kuréel ñu méngoo euh, kenn te kuréel bu ci nekk mu am nu muy jëflante ak ñoom mu bokkut ak jëflante bi jëflante ba ca des loola xam tolluwaay la xam euh, kenn ku ci nekk lam soxla la sàmm sàmm nga xam ni lenn luy niroog lu naqar yàlla du ko jege ci genn wàll loola moom kenn mënu ci ne moom waxal na boppam ne bantub secret bantub secret mosu koo jël ci perum jàmbur bant bu ñuy secret secret mosu koo jël ci perum jàmbur am na fu ñu Mouhamed Lamine Diop di nettali ne mas naa toog moom sëñ bi ak xaadi ba jaxate kala defe naa ne ak yeneen i kilifa sëñ Mamour Anta Sall defe naa ci la bokk am lu ñuy waxtaane loo xam ne xaadi bëggoon na xam ne sëñ bi ni mu bëggee xam-xam bëgg na mu bind ko xaadi jékki-jékki daal di jël damm benn bantu xat ci biir néeg bi mu toog ne ko bisimilah bind ci euh, man nga euh, ndax nga mën cee bind sëñ bi ndekete damm gi mu damm ban bantu xatu jàmbur bi naqari na ko waaye teggin yi waxu ko dafa jóg daal ne ko baaxoowumaa bind ci bantu bant bi xoolal ma googu tontu baaxoo maa bind baaxoo te jël yëfi jàmbur yu mu ko joxut ndax di génn dem ca àll ba wut fa wala ba mu indi yëfi boppam yoo xam ne moom lu lu ko leew doom la bi mu génnee euh, xaadi wala euh, dafa moom xam na ko mu ne sàllaaw euh, yëfi jàmbur yi ma jël rek la da waaye xam xam na ko tax jóg kon gis nga ko loola day mel ni ba demee borom nit baa ngi teewum lu lu lu woyof la waaye loola xeebu ko soo soo ñëwee ci wàllu wàllu wàllu xam al ilmu laduni al ilmu laduni bi nga xam ne ma ma ma ngi koy ma ngi koy wax ci eh, kilifa yooyu la moom nee na xafidtu ma sina ani dafatiri xam naa lu new ci téere yi waaytu ilman laa yura fil kutubi bal jaani min man xamaani bi kutubi waaw man dañ may wax bindal ma bind rek am na ci yoo xam ne moom du lu du lu ñuy jële ci ay téere eh, wax na ba tey ma laaj ko sama borom ma laaj ko sama borom Euh, ñi may waxal te duñu fen daana ko wax ñi may waxal duñu fen ñi may waxal te duñu fen kon ilmu ladunni boobu kenn sikki sàkkwut ne am na ko su dee wàllu muñ fa mu àggoon moom wax na ne dafa mujj ne ne duutu jàmbat far ala innani utni ala xayri munaymi wala ashtaki lil xalqi min faqdi du ma jàmbat mukk man fu ma toll damay sant na saxtu bi shukri shikayatan fala ashku lahu durran wa durri afala soo ñëwee ci wàllu cant cant gi moom wax na ne xeeti cant yëpp moom dajale na ko dhikri wa shukri wa ridwaani wa mahmadati bil qalbi wal jismi wal aqlaami lillaahi cantuk xol goog làmmiñ goog cër yépp la dëkkee di ko jëme ci borom waaye la gën a yéeme mooy di sant yàlla ba àgg ci far nag di digle na nañ la jàppale ci ci sant ba bisu tey jii ñu di ko santale nangami millions doomu aadama di ko santale mi at boobaak léegi foofu fa moom day mel ni euh, mëneesu ko mëneesu ko romb rida muy lu yàlla def mu neex la waxaloon na boppam ne Euh, juboo na ak sama borom ci yett juboo na ma samay morom ci yett juboo ma borom ci lu mu ma digal ma def lu mu ma tere ma bàyyi te lu mu dogal mu neex ma biir biti kon rida boobu moom foofu la nekk waaw euh, tawakkul wax na ne lastu ufawidu ila gayri l jalil amri wa ma faala bi fa huwa al jamil sama lenn du ma ko jox kenn ku dul yàlla waaye yàlla mi ma jox sama sama lépp nag nu mu def ak man rek baax na yi umuri lahu fawwadtu wal qalbu tayyibun ghariban la dal aada ifahu basir ba muy tumuranke nekk ci biir noonu ya jël léppam jox yàlla ca la ko amee ak dal ak féex goo xam ne gi yëgatut luy niroog naqar yitte ju kawe ci moom la yem soo xoolee dinaa ma ngay waxal boppam ne euh, mboolem xeeti dara yi ñu mii noonu yooyu aad ci aada wàllu ngëm wàllu jaamu wàllu nangam nangam yëpp làq na ko laata muy dem ci géej gi waaye kamaalul imaan wal islam wal ihsan mooy li ko tere woon a nelaw moo ko yóbbee lu ko dal coono yi ko di ko dal yëpp tolluwaay bu mu tolloon nga xam ne kenn mësu koo yab ci euh, ci genn anam da koo xeeboon ba daan wax ne da ko daan misaal ci ne euh, ñi doon kër kër di jëm si ci moom nee na moom jàppewu ko woon lu dul ne dafa génnoon taseeg jaaykatub loj ko lañ mu xeeñal ko loj ko lañ mu ñibbisi loj ko lañ yëpp tasaaroo xet gi tasaaroo fu mu jaar ñu naan ko may ma loj ko lañ may mu ne ah nekk fi naan awma loj ko loolu daal du ngor xaaral ma dem wuti ko kon gis nga fi mu tolloon ci daraja ci jamono lu jiit mu dem ci géej gi ak la muy kawe kawe ku ñu xeeñaloon loj ko leen rek la jàppee woon boppam soo ñëwee ci eh, njaboot gi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak moom ñoom itamit luy wone nañ melokaan yooyu mi ngi ci ñoom ñoom yaraloon boppam xasida ak alxaadi ba jaxate bi nga xam ne day mel ni moo sookee woon xasida gi gam defoon ngir wone seeni melokaan boo ca yemee mu doy mu rabbawna qad gaddu min aswaatihim gadda wa absaarihim xatta yudannu maan marda boo ko xoolee nanga mi bayit la bariwut waaye dalay indil seeni melokaan ci anam goo xam ne gi da xam ne ñii ñu mat sëkk lañ da nga ca gis ne ñu xir lañ ci def julli farate yémuñ ca farate waaye wa ma axarul awqaata naflan wala farda naafila sax saa bu jotee dañ koy def dikr wa ma rafaul aswaata illa bi dikrihim sàmm walam yalqa minhum waxidun ajnabiyatan tuxaadihi illa wa huwa atraqa aw sàmm nga xam ne lenn luy niroog mooy yàlla duñ ko jege su dee dundal waxtu gis nga ko ña ngay liggéey waaye ña ngay ña ngay sikkar su dee not seen bakkan tànku neen walaw xufaatan lam yakunu li yabahu bi xarrin wa shawkin bal bi man xukmuhu mum ba faaliwuñ kenn yàlla rek moo leen ñor euh, dégg ndigal moo leen yóbbu ci xaadi ñi di ko liggéeyal ci toolam ba mu soxla woon màggal boroom xam-xam nga xam ne xaadi dafa nee ne boo leen di xel da ngay jàpp ne ñoom dañoo dañoo wéradi waaw xataa yudannu maan marda araadu atibba aw mu masakina hammuhum zawu sadaqati muqridu rabbihim qarda da nga yaakaar ne dañuy yelwaan wala dañu dañoo wéradi ndax yar bu ëpp ndax yar bu ëpp euh, kon ak waaye nag mu boole si njàmbaar njàmbaar ndax nee na ba ba ba mu leen waxee liggéey bi nag moom aha euh, ca la xamee ne ñii kat ndeke dañoo yaru waaye luy niroog euh, yaafus nekku ci ñoom dëddu àdduna waaw yooyu yëpp boo ko xoolee da nga ko gis ci biir ci biir ci bi xasida gi laa yaarifuuna siwa gisyaani masjidihim wa darsi alwaaxihim wal xarsi bil jardi bayt woowu ba tey moom it tënk na lépp waaw jàng lañ xam julli ak ak ak ak ak liggéey xaadi wax ne wa tallaahi law anna almurabbiya qaadahum li yanfaw an il ardi al ida zalzalu l arda defar na leen ba ñu àgg ci foo xam ne nangul nañ ko nangoo xam ne bu ne woon bisimilah nañ jàkkaarloog noonu su boobaa suuf dana yëngu am na defe naa ne yaakaar na si Mouhamed Lamine Diop moo koy wax ne bu lee leen bu leen waxoon ne nañ sóobu ci biir géej gi kenn du des am na kenn si ñoom koo xam ne ki daan na wax ne yàlla mënut a def lu mën a xari baat bi waxi ne lu xaw a kii la ci kaw waaye da nga xam ni mu jublu mooy lenn lu yàlla def lu ko naqari amut kon rida boobu ñoom te kooku ci njaboot gi la àgg na foofu alxilmu day danu lewet googu ma nga woon ci ñoom ndax am na ci kii koo xam ne dafa mas a romb euh, ñaar ñu mel ni ñuy béju mu laajte lu xew ñu ne kenn ki ne morom ji damaa saaga damaa saaga mu ne ko aw saaga rek jaay ma saaga bi ma seddoo ko mag sama ñuy jaay ma saaga bi kon da koy wan ne ko naqar ab taalibe waru ko am am keneen koo xam ne kii dafa ñëw di boole si diw damaa saaga diw damaa saaga lu la wax mu am lu mu wax loo xam ne nangam ki nangam mu ne ko ah dalaa laaj rek dalaa laaj rek waaw ah, dalaa laaj rek da nga ko daf ko dafa tudd ne ko ndax day metti mun ne ko dalaa laaj rek da nga koy wax ne ko méttiwut xoolal loolu kii ñëw ak tàngooram ak xët-xëtam ne dañ koo def lii dañ ko wax li mu won ko ne ko li ngay xët-xëti du dara du dara kon ñoom mu day denu boobu foofu boobu nga foon muñ xiif kolkolub cere wala as as as tibbub euh, baraay boo xam ne bii lu toll noonu ci ndox as ay góoxi ndox ba ba ba waxtu wa dellusiwaat daan nañ ko def bero googu ñu daan ànd ak sëñ bi yooyu yëpp ba tey feeñ na ñoom kon boo boo loolu si sëñ Basiru wax ne ku ku ku ne woon euh, kiyam boobu kutumbalam boobu ñoom lay ñoom lay ñoom lay wane seen melokaan ba tey doo juum daañu la ko mën daañu ko mën a nangu ba tey loolu lii lii ay firnde la ci lii firnde la ci su ko defee kon euh, fi may tëjee daal mooy ñu xam ne euh, xasida gi li muy gàtt gàtt ci ay ci ay bayt maanaam aw lay la aw lay la woo xam ne siñ bi euh, layale na ko boppam layal na ko tamit ak njabootam gi nga xam ne nangul nañoo nangul nañ ko Euh, nangu nañoo topp ci gannaawam ci ni mu doon dunde euh, wu ndax ndax lan jàngale na fi lan moom moom moom lan mooy tasawuf bi mu doon dund jàngale na lan mooy tasawuf taalibe ci boppam nan la war a mel yoonu tasawuf yi nu mu mel sëriñ bu mat sëriñ nu muy mel loolu lépp bàyyiwu ci dara dara dara waaw ba tax na kon euh, boo xoolee daal xasida gi da ngay gis ne bu la neexee nga teg sa baaram ne taalibe yaa ngi nii tegaat sa baaram ne sëriñ saa ngi nii tegaat sa baaraam ne yoon waa ngi nii fu ñu ko jëlee càllala bi boo demee ba mu sës ñu jokk ko ca saxaaba ya jokk ci yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne nekkut lu ñu sosal seen bopp nekkut lu ñu fental seen bopp waaye dañ koo euh, doon jokkalante te boo ko toppee mu yóbbulaat la ci nga xam ne moo fi indi diine ji moo fi indi euh, diine ji nga xam ne ñetti xaaj la al iman wal islam wal ihsan boobu nga xam ne mooy tasawuf bi nga xam ne moom la ñii doon dund di ko dund nag ci anam ga nga xam ne moo gën a mat te gën a kawe euh, noo ngi jéggulu euh, ni ma ko waxoon ci njalbeen mboolem ñi nga xam ne ay boroom xam-xam lañ euh, ndax dañ doon jéem doon wéyee ndigal waaye du du ak man su ko defee tamit di ñaan rek suñu borom xanaa lu ñu fi indi mu néew mu bari rek mu doon loo xam ne daf ñu koy defal jaamu gu ñu nangu te làqal ñu ko fu yàq yëgut may ñu yàgg fekk loolu at yu bare bari wa axiru daawana an alhamdulilahi rabil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyi muhammadin wa alihi wa sahbi